yelwa yelwaan rek lañu mën a def ñetteel bi tax mënuñoo confiné waat nit ñi mooy euh, sénégalais yi ñi ngi ci jafe-jafe yu métti te leen teg jafe-jafe yi mooy échec yi ñu am ci suñuy politique économique koo mënul jox liggéey mënoo ko jox salaire mënoo koo faj kooku soo ko nee tëjul sa kër da nga bëgg a moo tax warul am te waruñu koo nangu kenn waratu fee confiner Sénégalais yi waaye nag loolu pour mu dox il faut que kenn ku nekk ci ñun Sénégalais yi laay waxal man waxuma ak ñoom de li may wax mooy responsabilité individuelle la kenn ku nekk ci ñun su dee duñu confiner kenn ku nekk ci ñun la jël ay matuwaayam ba li ñuy wax les mesure barrières mooy Eh, jumtuwaay yi nga mën a jël ba mbir mi du la dal nga def ko te nag mbokk yi man de su may dox ci mbedd mi maa ngi xool Sénégalais yi waaye sàggane nañu masque bi torop kon mesure barrière yi dama ko ñaan Sénégalais yi ngir yàlla parce que amul dara lu ko ëpp efficacité nag ñii vacciné wu soo demee Europe tey ku vacciné wu sooy génn da ngay takk masque vaccin bi terewul dit nga takk masque kon loolu mooy première mesure yi na ñëpp delluwaat ci takk masque yi góorgóorlu ci ñaareel bi mooy li nga xam ne mooy distance yi ñu war a am suñu diggante nañ ci gën a góorgóorlu it ñetteel bi mooy ndaje. Budul ndaje bu obligatoire nañ ko moyetu ndaje budul ndaje bu obligatoire nañ ko moyetu suma ne obligatoire moy ndaje budul farata nañ ko moyetu farata nak day varier selon les contextes parce que soudé diiné ci bopom mo la né dem julli ci farata la waye buñu démé ba ab fièvre bo xamné ne mun na wàll nit ki ci jumaa bi wala ñu nek guerre ba so fa démé ñu ray la ñu ne la mën ngaa julli sa kër kooku farata gi tey teggi nañ ko